dal leen ak jàmm yéen kaay yu bari xëyandoo tey géew politique bu jaax lool ndax ci wàll liste électorale yii lée Walf Quotidien waa coalition Yewwi Askan Wi fa ñu tegoon seen tànk teggeeguñ ko fa ñu ngoyoon bàyyiwuñ ko Ousmane Sonko ay ñooñam ne lenn dong ma mun a am maanaam seen liste jàll lu ko mooy leneen xew ça passe ou ça casse Walf Quotidien am taxaw seetlu ca nañu nee na lee liste proportionnelle bu Yewwi Askan Wi Walf Quotidien waa Yewwi Askan Wi mun nañoo xeex la leen dal ci seen liste si wàllub yoon waaye itamit mun nañ ko xeex ci mbedd mi maanaam wàcc ci géew politique bi xam le ne coalition Yewwi Askan Wi mun nañoo def beneen jéego maanaam fexe ba démissionné loo bépp suppléant ci liste nationale loolee dina doon lu feeñal lool njumte gi conseil constitutionnel def ba ko ñaareel waa Yewwi Askan Wi du ñu toog rek di seetaan daañ ko ñaxtu daañu yëglu daañu yëngu-yëngal daañ ko matal ëllëg ci àllarba ji fii ci mbeddu Ndakaaru Walf Quotidien ak li xew rawatina dogal gi conseil constitutionnel jël gàntal bépp recours gañ ko jéebaloon moo xam waa Yewwi Askan Wi sa bopp ak ñeneen ñeneen yéen cabinet ni conseil constitutionnel doxalee doon ci jamono ji dañoo bëgg a salfaañe maanaam noot ak ak yelleefu sénégalais yi te loolee àndut ak démocratie yéen a kaabidi turbine xëy di laajte ndax waxtu wa jotul ñu taal jëppeet conseil constitutionnel ci waxin maanaam jëlee fi conseil constitutionnel professeur Amsatou Sow Sidibé gis ne bile conseil constitutionnel dafa politique lool te nag bile doxalin war na fee dàkk maître Assane Dioma ne fa ñu tegoon conseil constitutionnel sag gamu amoon saggeeku na Ndiaga Sylla di expert xam le ne opposition bi ku leen bëgg xañ ñu dem élection mun nañ jàpp ne ab coup d'état démocratique la a wa jot na kii neexul ba neexul waaye dafa jalgati yoon waayaana maar gis ne bu ñu deful ndànk Sénégal nar soobuwaat ci coono maanaam ci fitna gannaaw liste ya ñu gàntal ca conseil constitutionnel genekaa bi di l'info ne fitna moo tàmbale yoot élection législative yi le ndax kàddu ya cay jib foo ko natt ci ñagas weesu na ko moo xam kàddu yay bawoo ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak waa gëm sa bopp ay kàddoom ci l'info Barthélémy Diaz daal di ne seen dajeb ñaxtu àllarba ji mooy jëmmal li war a mun a gàntal ëllëg troisième mandat bu njiit réew mi Macky Sall Barthélémy ne troisième mandat du fi amee Aminata Touré ci l'info ne li am ba des mooy du ñu bàyyi mukk ñuy taal réew du ñu bàyyi kenn def naka sudul noonu ñoom jóg nañu taxaw ngir aar Sénégal yéen kaabi réew mi quotidien réewum Sénégal gile mu ngi ci guddi gu setagul lu ne mun naa na ñu des daañu yëglu direct news ne ñoom ñaar ñile ñoo naroon a gàllankoor njiit réew mi Macky Sall moo xam Ousmane Sonko ak Bougane Gueye Dany waaye bokkatuñ ca mbir ya maanaam ñoom ñaar mënatuñoo dem élection législative yéen kaa critique ne élection jotagul waaye mbir yi lool ex juge dem ay kàddoom ci critique gis ne yoon dañ ko cee noot expert électoral bi di Ndiaga Sylla ne république daanaka amatu fi ndax sëngéem na jëriñ gi ñu denk yoon xam tënk ci biir yéenekaay bi di critique archevêque bu Dakar di monseigneur Benjamin Ndiaye daal di sàkku ci askan wi ngir ñu jiital jàmm ci élection législative ñu jëm sàkku na itamit ñu amal élection yu jaar yoon ba kenn ku nekk mun a woteel ka la neex te lépp tënku ci démocratie yéenekaay bi di Sud Quotidien bu doonoon course ñu ne Sonko ak waa Yewwi Askan Wi bokkatuñ ca maanaam seen liste nationale dañ ko neenal seen recours mujjuta jàll ca conseil constitutionnel ay kàddoom ci Sud Quotidien monseigneur Benjamin Ndiaye di am lu ko jaaxal lool ci liste yi ne ndax jarutoon ñu gën a tàggataat maanaam amal renforcement de capacité ñi yëngu ci langue politique bi moo xam parti politique wala coalition de parti su ko defee ñu mun a moytandiku rëq-rëq yi ci am ba ñëpp mun a dem ci élection ci jàmm kenn ku nekk mun a woteel ku la neex te lépp tënku ci wàllu démocratie te loolee dina bokk ci li mun a jur jàmm ci élection yi yéen kaa bi di alerte quotidien Thiès daloo ndaje mu yaatu jëm ci sargal responsable APR bi di Habib Niang gannaaw buñ ko jiitalul dalee ca Thiès ak feneen ak feneen Habib Niane daan ci béy waar ba jox ndam njiitu réew mi Macky Sall ci biir yéene ki Abdou Walf Quotidien Abdoul Mbaye njiital acte joxe na xalaatam ci nguuruk Macky Sall xam le ne Macky Sall mi le jeexal na nguur la gu ne ci tànk tàggatoo ndax li fi faral di xew ak jafe-jafe tënk askan wi te ba tey saafara amagul Abdoul mbay ne bu yaboo njiitu réew Macky fagaru te xam ne nguuram jeex na yéene ki Abdou Le xëy dalal njiital jàngu bi fii ci Ndakaaru di Monseigneur Benjamin Ndiaye ñaawlu na fitna gi ne cobboy ci réew mi ñaawlu itamit ger gi fi ne maanaam corruption sudul noonu gi faral di am ñaawlu ñàkk wax dégg gi fi am fexe ba saxal jàmm ci réew mi rawatina élection législative ñu jëm l'observateur ne kaaraange gi demeetul noonu ca diwaanu Louga gannaaw la fa jot xew ay sambabo yu ngannaayu ba dëgër ñoo gaare seen woto ne sarax ci clinique yaay xaddi ba ne ca Louga bundu xataal ñañ fa fekk roñ fa koppar gañ fa fekk dem seen yoon tax ci biir yéen kaab yi askanu Louga ña ngay woote wàllu yéen kaab di wal fa koti gene feneen fu askan wi woote wàllu mooy yokkute gi am ci njëg yi rawatina carburant bi yéen kaab bi na gi yokku na njëg mi ci super carburant bi jar 775 francs léegi yegg na ba ca francs yokkute googule daanaka ñeel na borom oto yi amee koom waaye bu dee transport en commun bi yeggaguñ ca yéene kaa bi di di ñu yeggee jéego bi Sadio Mané def ci match gi doxoon ci diggante Sénégal ak Bénin yéene kaa ne ñetti bi ya ca Sénégal am Sadio Mané mooy ki ko dugal raw na Henri Camara ci limu bi yamu dugal ci équipe nationale yéene kaa ne lépp a ngi amee woon ca stade Maître Abdoulaye Wade mi kenn sam bu njëkk maanaam match d'entretien toppatoo gi war ci bile stade amu fa boo yegee ca pelouse ba jaar ca turbine bu poussière lool ak courant gu demeewu ni géne ki abidi stade ne na muy demee tey ca stade Maître Abdoulaye Wade bokk na ci Sénégal mi war a jonganteeg Rwanda ngoonuk tey ji lay doon waaye Sadio Mané dugg na ci taarixu footballu Sénégal mooy meilleur buteur maanaam mooy ki ëppale bi yamu dugal ci équipe nationale raw na ca Henri Camara ak ñeneen ak ñeneen ñu wax ci leneen ak yéen a ki abidi suñu lamb mi xëy dalal Balla Gaye 2 mi yëkkati benn kàddu xamal askan wi rawatina amateur yi léegi lépp yéenekaay bi di libération ne waa ji mbubboo ne docteur la ay mbiram tàmbale naa leer di docteur Moussa Fall yéenekaay bi ne raxas ak bale moom lañ ko sasoon moom lañ ko santoon ca hôpital Fann waaye ndekete docteur Moussa Fall clinique la ubbi tàmbale di ci faj yéenekaay bi kamu mujjee consulter kamu mujjee faj ca Kaolack la bawoo libération ne ca googule clinique ma fa doon amal ay analyse yeneen ak yeneen waaye docteur Moussa Fall buñ ko laajee ana la ci dugal mu ne sopp métier médecine moo ko daanu ci mecceem googu ndax yoon teg na ko loxo may laaj mu jot a consulter ba ba tey ana nu ñuy def